alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. réew mi ñu naan réew mi réew mi réew mi réew kenn mënu koo tas. réew mi du tas. ku sa kër tas nga foog na réew mi dana tas itam réew mi du tas insha allah réew mi ñi ko tabax tabaxuñ ko ci caaxaan fi ne nag ku wax ñu saaga la man dama foog ne saaga neex na man daal damaa foog ne saaga neex na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ki yées ci nit ñi mooy kiy saaga ndeyam ak baayam saaba yi laaj ko ne ko nu nit di saaga ndeyam ak baayam mu ne da ngay saaga ndey jàmbur ak bàyyi jàmbur kon ku desewul dara ci say waajur gannaaw buñ la juree yar nga màgg di ponkal ci réew mi ngay taxaw di leen saaga kooku réew soxlawut ko ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di sant àddina dara xëyut sotti dara xëyut sotti bëgg-bëgg yëpp ci yàlla lañ koo yër yéen ay nit ngeen ñun ay nit lañ mu ngi dimbalante nag bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla dimbale bu leen yàlla dimbalee dinañ am ndimbal ñu nit suñ sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass mu ne ñett ku leen di xeeb na fekk nga boroom xam-xam ak mag mu jub ak buur bu jub mu ne ñetti ñi ku leen di xeeb na fekk nga Macky Sall président Macky Sall laay wax sax maa ko déglu ci dajale Omar yéen mu wax wax boo xam ne bu ko ab sëriñ waxoon rek mbooloo mu mu toog ñëpp dinañ fottasu mu ne fii ma toog nii yàlla tàj ma tegu ma fi sama bopp yàlla ma fi tàj te bis bi muy jeex xam na ko diir bii ma fi yàlla tàj duñ góorgóorlu tabax ci réew mi moo gën ñu nekk fi di xastante woon rek ak saagante mu gën man réew mi moomuma ko am na ñoo fi njëkkoon te arab yi dañuy léebu dañu ne law daama li xayrika maa wasala ilayka bu doon kuddoo dara du génn ci sa loxo kon kenn du ci jot ñaata président bañ indépendance ak léegi Senghor demut ab juuf demut Wade demut ki moom tàggool na boppam réew mii ñu foog ne ndax dañuy lëjëg dafay lii taali pa maa ne jël jaru ko loolu jaru ko foo fekk ñaar ñuy xuloo ko njëkk saaga moo gën a ñàkk argument ka njëkk a dóor moo gën a ragal àddina duñ ko dóore duñ ko saagaantee duñ ko xeex addina dañ nit da ngay wax ba convaincre ko ci wax mu déglu la nga dégluloo xel moom la yàlla bëgg ci doomu adama moom la ñuy jëfandiku waaye doole muscle rek dee lay sa shadiidu bi sura yonente ko wax doole borom doole du mooy ki nga xam ne bu meree fadd ñu ne ko lan la mu ne man yamliku nafsahu inda al ghadab mooy koo xam ne da ngay maîtriser sa bopp boo amee lu la naqari koo koy borom doole waaye li nit ñi def nii lii yëf yi ragal la saagaante bu fekkoon ne mooy joxe réew kon nit ñu baax ñi duñu am dara xastaante bu doon mooy joxe réew nit ñu baax ñu duñu am dara mais réew loolu joxe joxewut ko yàlla pare na kii amee réew mi yàlla pare na ci ba pare jarul ñàkk sa bopp ñunu neen la nag ñooy fekkee ziyaare yi ñooy dem ci jàkka yi ñooy dem ci ngénte yi céet yi ñooy robante ku ci fexe ba yàq sa diggante sa dëkkandóor ba boo ko gisee ci mbedd gaaw jàdd ut foo dugg sa affaire la yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxawu yal na leen yàlla dimbale ñun réew mii rek lañ am amuñ yeneen nationalité bëgguñ feneen sax man sax far Kaolack rek la région bii rek ci la dëkk barki dém boo jaay dem naa Ndakaaru dama dañ a indul ma la leen induwu ma fanaanu ma Kaolack laa dëkk Baye Niass mu ne tukki tukkee koy jeexal ku ne na nga dem fa nga dëkk duñ ay dof nag jàng nañ li nit ñi jàng xam nañ li nit ñi xam wër nañ àddina waaye jikko yii xëy rek juddu ci Sénégal majeur wax lu bon def lu bon di ko manifester saaga kilifa xaste nit ak diine nga tudd turam saaga ko yàlla buñ ci bokk yàlla bu ci suñ doom bokk yàlla bu ci suñ sët bokk réew mi dana soppeeku kum neex kum naqari réew mi dana soppeeku dana tege ci loxo yu baax ay boromi xam-xam ak nit ñu yëw ay jaam yàlla yoo xam na duñ saaga kenn duñ xas kenn ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yàlla allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim